permis largement de gagner les députés de Louga et Goudomp. 23 heures et partir sur une majorité 5 minutes euh, am na beneen candidat mu nga xamante ni itam euh, tweeté na di wax ci li xew muy euh, El Hadj Mamadou Diaw di Mame Boye Diaw moom mi ngi wax ni chers compatriotes les tendances fortes qui se dégagent suite aux opérations de dépouillement présage d'une nette victoire de Bassirou Diomaye Faye les Sénégalais se sont exprimés de façon claire Seul le peuple est la coalition JAO 2024 et en mon nom propre, j'exprime mes vives félicitations au président Bassirou Diomaye Faye et à toute la coalition Diomaye 2024. En attendant les résultats officiels, nous souhaitons le respect euh, du choix des Sénégalais qui est sacré. Je voudrais remercier les membres euh, de la coalition JAO 2024 pour la belle aventure de ma candidature. Euh, ma à tous les Sénégalais qui ont aussi porté un soutien à ma candidature, euh, a écrit sur euh, Twitter, euh, sur XX Twitter, le candidat Mam Boy Diao. beneen analyse boo xamante ni tamit mën nañ ko def ci waxtu yu Souleymane mooy que finalement c'est la démocratie sénégalaise qui a qui a gagné on l'a dit la constitution a rompu mais n'a pas rompu dinañ ci ñëwaat parce que fi ma bëgg a ñëw mooy ci démocratie ak taxawaayu presse parce que tey ji ñun lii ñuy def nii au niveau de TFM je parle de nous c'est ce qu'on faisait en